ay ca jërë ngeen jëf euh, jaajëf internet yeeg auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas euh, journal bi nga xam ni heure yi tax na nit ñi di accélérer seeni i lépp rek ngir benn information bañ leen a raw faits divers yi nga xam ni moo xew euh, ci réew mi tey nag am nañ ci boo xam ni info de taille la ku dëkk ci kër gi la vraiment mënuñu koo tëb ñu koo jéggi dafa def dañ koy wax. Modou Lamine maa ngi lay ziar euh, di euh, ziar euh, <laughs> Maysa Mbaye fi ñu toll nii ku dëkk ci kër gi rek te doon ndékki da teg sa ndékki ñu toll di xaar ah, passe partout wax na aba est-ce que duñ ko jéggi wala mën nañ ko mukk ci àdduna dañ ko jàllale rek waaw na am affaire bi moom na am équilibre rek transparence waaw kay passe maa ngi lay ziar bu baax a baax a sama waa maa ngi lay delloo ziar bu baax Ababacar. mbaa yëf yaa ngi dox ñu ngi sant bu baax. Hmm. xam nga man sama problème mooy damaa dawul coow. Ah. te jàll. ayca Diagne maa ngi lay ziar bu a baax. maa ngi la fay Diagne. di nuyu auditeurs rek internet du ziar. di la nuyu sëñ Aba. Mhm. mon cher ami. ñoo def Diagne. sant yàlla. commissaire Doumbouya. Mhm. mu nekk euh, HLM moom moo géré ko police HLM. Mhm. dafa am benn euh, taximan bu fi indi ay bagages ay ko fàtte ci oto wala yooyu mat na deux nag. kooku mi ngi ko jëlee woon Colobane doon ko yóbbu Maris. mu fàtte fa benn valise bu am ay yére bébé ak yooyu noonu valise baa nga police HLM. soit bu ñu contacter wala bu demee police HLM. ان شاء الله دينا وافيك باغاج امنا سلو كونتاك بي 77 لا 157 17 موي نيميرو خلاص بي امنا سلو واد جيغا في انريستري وون تاي واخ تي افير بي امون خاوما تكنوبول تكنوبول بي انواي نما اي اس ام اس يو باري باري واي واي خمغا من يما انواي ييب ترانسفيري نالاكو واي نما paas enregistré na ma mais li ma bëggoon mu comprendre ko comprendre ko yooyu ma ne ko demaatal mu enregistré waat la. Hmm. waaw ñu gën a mën a comprendre. man enregistré wu ma kenn man. man mii bi mu fi génnee woowaat na ma. waaw waaw yónnee ma ay message WhatsApp. waaw comme quoi ay photo yu ko booy bi rendee week hmm, yooyu. Hmm. le temps que may tijji message bi. mu supprimé ko waat na ko. ba pare bloqué waat numéro bi. sama waxu démb bi rek. waaw mooy waaj a jubul. l' essentiel mooy yoon jàpp na ña ko def. Je leen teg ci yoon. te man gis ñu bind fenn mais dafa ni bon je pense l'avoir vu dans l'observateur de ce matin. parce que dama doon feuilleté ni journaux bon ci article au fond mais j'ai bien l'impression que gis titre bi. Mhm. Euh, que. Je ma am information ci kanam su ci information ci kanam. ci de l'observateur. du wax la vous nee mhm. Mhm. nit dafay dem di faju ci vous gis nga vous gis internet bi ñuy di wax di lor dal la fa ñu tégg la ci oto yóbbu hôpital lay deug la c'est-à-dire loolu dafa dafa contradictoire jigen ñëw na fii demoon di faju ci stade praticien moo koy sotti ndox mu tang ba ambulance moko fa jël ci ñu soog ko yóbbu hôpital wakam gi ñu yóbbu ko hôpital mhm. donc yoy il faut tamit cest dire nguur gi nguur gi na jëm régulariser yoy ñi fi dem ci stade praticien ji dafa feebar bari nañu mhm. ñi fay dem dé bari nañu mhm. ñi fay dem biir tam bari nañu ñi fay dem biir <laughs> hmm. waaw dem fa jëlee fa biir du lakk bu jeex li man maa la ko wax. Euh, paas xalaas bi njëkk. da ngaa reculé. <laughs> man li may avancé ak a néew ci say wax yow. li ma ci avancé lu néew la euh, kii nga la nga ni. Touba Sarr ba tey. Touba Sarr nekkoon démb. 70 jours laa la wax. espagnol yi moom wala italien yi. italien yi xam man italien dama ko miin Pescara. Brescia te te nag li ma 70 si ma lay wax nii Aba bi ma bi ñu ko annoncé démb am na suñu ñoo xamante ni bokkuñ ci collectif boobu noonu. ñenn yi dañoo jël seen ay bagage jox ko Touba fay ko seen xaalis mu jël bagage yi dem sous-traité ko keneen yóbbu xaalis ba ñooñu naxsaay na am na si ñoo xam ne seen bagage Touba récupéré na ko fay nañ ko seen xaalis xaalis ba naxsaay na bagage yi naxsaay nañu. léegi dañu taxawal collectif des victimes de Touba Sarr. dañoo bari. <laughs> Eh, ay problème a ngi am de. dañoo bari de. Aziz mii de sama xarit la bi ma koy xam ma nga woon ci police centrale de. doomu Thiès la. waaw taalibe Serigne Babacar ku yiw la. nit Cees la waaw. sama mbokk mi taalibe Serigne la sama xarit la. dama koy xam police centrale la nekkoon après dafa demaat police bi duggaat jàngiwaat. Euh, gën a xóotal affaire yi nee na ma Aba euh, comme léegi police nga toogee ci ci rajo bi ak di ci wax loo neex ak loo maîtriser wul ba pare kuy si sa convocation xam nga Aziz ñoom xamuñu kuy waajal Aba Show. suba vendredi di répété ñun kon ko. te man mii dama ci war a dem. <laughs> ayca Lamine. Touba waaw Lamine xam nga day ndékki heure bi. ñaari at yu ma sëyee ak sama jëkkër maa moom amuñu doom lu ne. Touba Sarr xam nga bu ñuy euh, def émission ñun euh, techniciens yi di ndékki euh, li mooy conséquences yi. Hmm. Lamine ñun bi ñuy joxe kiiwu Touba moom mu ngi xàmp ayca. sama Allah, machallah ma ëmb ko si jàmm am ko si jàmm machallah aw ma benn problème mais depuis loolu man de Baye Dioriñ dañ fi am benn problème bu bu sérieux cas bu doy waar cas bu sérieux mat nañ plus de 50 personnes yoo xamante ni dafa am benn waay bu tudd Touba Sarr dëkk Touba Guédé Bo xamante ni daf fi ñëw fi Pescara mom dëkkul Pescara brèche yalla dekk di jëngu ci lu wal ci walu conteneur mu ñëw fi lu wara tollok 50 personnes dajalé seeni bagage jox ko yëkkati seen xaalis fay ko sa waay ni dërëx xaalis ba ni dërëx bagage ba lu war a toll atum yàlla man sama bagage ma nga ca la ma ca yore ci bagage xamuma nu mu toll li ma ko jox ci xaalis ëpp na téeméeri junni te maa ci gën a tuuti la nag léegi nag gars yi depuis boobu ba léegi mënatuñ koo jot téléphone lu war a toll ak 3 mois ngi nii day nekk en ligne whatsapp boo ko woowee du la wuyu boo ko envoyé message du ko lire boo ko woowee appel normal dem boîte vocale direct gars yi lu nekk daj nañ ko mënuñoo fexe ba jot ko mënuñoo fexe ba xam ci lu mu nekk lekk na suñu xaalis réeral suñu ay bagage mënatuñ koo jot téléphone depuis boobu ba léegi gars yi ñii porté nañu plainte Sénégal ñii porté nañu plainte fii mënuñoo fexe ba am benn résultat ñaari plainte yooyu laa la yóbbante benn bi Sénégal laa ko def Touba laa ko defee brigade de recherche bu Touba laa dem booy dugg Touba jóge dakaar di dugg Touba ngaabu mais gis nga ba ma demee ci tàng-tàng bi xoolal mu ne ma wool Touba ma woo tuuba Sarr jëlu ma mais bi ma wooyee doom ji mu ne ma ah, xam nga fu doom ji dëkk ma ne ko déedéet mais yor naa numéro ma woo doom ji di wax ak moom mu may këll rek mu ne ma jox ma ko ma jox ko ko xoolal ci tàng-tàng bi Touba woote na fa waaw dañoo nekk ci ay problème dugg na fii génn fii waaw lii nag waroon na mën a ñàkk daal parce que kii xam nga ku ma jox cër la nekk fi ma ne ko sëñ bi mu ne maa ma ne ko man du ma wax ak yow li ma war ci yow mooy lan man dégg ma fay sama xaalis deux million cinq cent mille CFA di nga ma ko fay parce que valeur laa la jox sama chambre ak coucher bés pul bés pul bu ma jëndal sama soxna ak yeneen ak yeneen mënum nga maa ngi ko jox mille soixante euros laa ko jox mille soixante euros laa ko jox ko bu ma compter jox ko lima gëna metti ci sama aduna dañoo dem ba Brescia mu ñuy taylé ak ay Gambien Gambien bi ma ñëw xawma ma ñaxtu ci kawam ne ko mais anu suñuy bagage mu ne ma mboka amul ben conteneur bu fi joggé jëm Sénégal te xolal Touba ne woon na am na conteneur bo xamé mi dañ ko téye Dakar mu ne ma mboka ñun ñetti weer ngi ni yo xamni ni gisunu fi container bu bu fi joggé dem dem Sénégal wax leen ak mom mu fay leen seen bagage mboka fi dara nekku fi seen bagage mi ngi ni camion be ci amna ay bagage yuñ ci sol nekete camion bobu lako ivoirien bi di joxoon xol xolal lol tass yaakar bo ne ni ken mënu lako expliquer quoi di ñu tayle nee damay liggéey awma jot nga jël ñew ba Pescara 700 km nga jël ay bagage yu jambour ñu jox la seeni xaalis nga ne amulo jot da ngay liggéey man mënuma comprendre dégg ko Aba en tout cas de toute façon ba légui Touba ñu ngi koy déglu mm-hmm. parce que parce que bo ba ñu ngi koy wo mm-hmm. mais day day day day téléphone bi day sonné rek. ëpp téléphone bi day sonné rek. Mhm. donc wuyuwul tontuwul aussi ci message yi ñu koy envoyé waaw. doom ji aussi woo naa ko. Mhm. waaw doomam woo naa ko mais moom tamit waxul dara dara lu leer. ah léegi euh, ñoom lan moo ci euh, pexe te gaa yaa ngi envoyé SMS rek. ba ba léegi gaa yi ñu ngi envoyé te moom boo ko wooyee du la wuyu dafay nekk en ligne boo ko yónnee éléments il réagit pas te fait bi je rappelle que mosoon am en mook benn femme ci même fee mel nii. Hmm? waaw. kon moom ci yii nekk. ah. ma nga noonu daal. am nga numéro yow yaa ngi woote. Touba léegi-léegi boo ko woo ñu day sonn ba def du la wuy. doo envoyé SMS. du la tontu da koy lire du la faale. moom ànd moom fu mu ne. instant bi euh, mi ngi fële mi ngi Italie. mais bu déggul tamit ay mbokk ma ngi dégg. Hmm. déggul tamit doom ji nekk Sénégal fii woo naa ko ba doom ji ne ma woo na ko. Hmm. mais waxaatuma ci dara. ah dama boo wooyee doom ji ne si sa papa def xaw ma nan nga koy mën a expliquer. ah doom ji xam na ci yow parce que ñii nii tamit woon dañuy wax ak doom ji. bu dee moom tamit mu ngi dégg bu dee am na yu mu war a wax ubbil nañ ko suñuy buntu. Mm-hmm. abaa ay lii lan la. xam nga Sénégal dañoo dañoo gaaw ci ayal gaaf. jigéen jigéen. Mm-hmm. ndaw si nee na moom dafa day sëy borom këram mais bi ko waaj a takkee rek bonjour les dégâts. ay problème yan genre waa ci loolu. ci waa waaw yemul ci loolu ñu dàq ko liggéeyam ba mu ne woon. ci waa ji moom waa ji moom mu amaat liggéey ñu dàqaat ko fi mu nekk nii waa ji mi ngi ndaw saa ngi chômé. maanaam fase nañ ko. non ñoom ñaar ñi ngi ñi ngi nekk di sëy. Mhm. ndaw si dafa bëgg waaj waaj daa bëgg ndaw si mais le problème qui se pose mooy ndaw si moom nee na dafa jàpp ne. bi ñu li si xaaree seen diggante. dañ ne waa ji xaw ma ndox la moom safara la ñoom ñaar mun ñoo ànd. Hmm, ñu forcé ko. waa ji nëbb ko ko ñu forcé ko ñoom ñaar sëy. Hmm. est-ce que nag loolu réalité la wala du réalité man question rek laay posé mais en tout cas ndaw si sonn na. ana sama papa bi nekk TFM kii firi gént. Euh, Abdou ah mi ngi yi xool yi ndax loolu am na parce que tamit suñ cosaan la. Ah, ah, mais ah. àdduna bi day toll foo xam ni ñun suñu génération yooyu taxuñu koo gëm noonu. te nit war nga fooy mën ci dugg itam nga dem. jaañ est-ce que xale yi léegi bu ñuy takk jabar dinañ seetlu ji wala dem xooli ko suñu génération ñun loolu. Hmm. est-ce que nekkati na suñu priorité. <laughs> mag yow ci yëpp mag ñee ko daan def de wala dara waaye fi ñu toll nii. Hmm. da koy bëgg mu bëgg la rek sa waay. mais mais par exemple boo takk tubaab du ko li si xaar listixaar tubaab bu yor ay xéewalam indi xaalisam noonu la koy listixaare wala tubaab tubaab buy takk euh, sénégalais wala yooyu nañ ko ku yor xaalisam naka nga koy listixaare listixaar listixaar kenn nga listixaar koo xam sa <laughs> la ngay seet nekk fa ah nañ déglu ñëwaat kon nañ déglu man fi avorté doom si diggante ñaari at yooyu noonu lu ne xew na fi amoon na ak patron ñu jàppale ko mu amaat fi beneen problème mu ñàkk liggéeyam ci liggéeyukaayam muy ñaari problème ñu jàpp ko teg ko buñ ko tegee lu ñu newoon sax moom la def def ko après ñu libéré ko xam ne luñ koy tuumaal amul buñ koy teg man maa ëmb ëmb ay weer ma avorté avant muy génn sax man avorté naa mu génn noonu liggéeyul di jéem a góorgóorlu jàppaat ci beneen liggéey après doxul liggéey boobu yàqu muy góorgóorlu ba nii metti na trop fu mu dem seet wala jéem a xool suñu mbir maam moom dañ ko naan na ma bàyyi parce man maa ko teg li mu nekkee ni yëpp waaw man maa ko teg dañ ko ne daal dem am rab rab bu soxor boo xam ne moo ko yàqal lépp fu mu dugg daf koy yàqal man daal na ma bàyyi loolu lañ koy wax ñenn ñi ne ko boo waroo ci boo nu dugg yenn sëriñ dañ koy wax ko man safara la moom ndox dañ koy wax loolu ñi naan ko kii dafa am rab rab bu soxor boo ko bàyyi nii ngay continuer ak moom doo am dara mais defuma waxuma moom nag wax dëgg yàlla ku baax la lu am yéene na ma ko daf may jox sax toog lu mu am yéene na ma ko lu mu am yéene na ma ko bëgg na ma yërëm na ma xasuma saagaw ma dara mais daal man daal problème yooyu daal laa nekkee su ma tëddee du ma nelaw ma koy xalaat rek sama xol bi day jeex damay jooy rek ma dama ne woon ñu li si xaaral ma yooyu benn waaye ma xoolal ma bi ma xoolalee yëpp ñu waxtaan après ma ne xaaral ma wax ko li ne ci man ma expliqué ko yëpp mu ne ma daal affaire rap ñun daal suñu kii ñoo àndul man safara laa moom ndox la àndul te buñ ko xooloon suñu diggante avant ñoo sëy duñ doon sëy man nee naa sama jëkkër xooloon na ko sax peut-être que daf maa bañoon wax dara ndax ni ma bëggee mu dëgg bal bi rek takk ma mën na am loolu la man xaw Kau ci dara peut-être que rab la peut-être que sama diggante ak moom comme li wax man safara la mom dox la andul peut-être que loolu xawma ci dara mais na lo xamne dal daf may bu ma tëddee du ma nelaw des fois damay deglu ni ay vocal yo xamne mom ma lu mu wax serigne di ko nan sa jabar ji daal fa am rab bu soxor mo lay yakal mo lay ni te xam nga gor gor rek ngay meuna mënoo nekk ak nit ñu la naan moo la ne moo la mënoo am dara mënoo am nii dafa metti si xol waxtaane mag sama benn xarit waxtaane ma ko kenn parce que nit ñi ku boo leen waxee sa loola metti rek ñu toogee la wax sama famille jëkkër xamaluñ ma ci dara man nag moom rek ñoo ko xam wax naa ko nag sama yaay wax ko sama pap ak sama taaw yaay ma expliqué ko mais ay jamono la woon ma expliqué leen bi ma leen expliqué dañ ma ne carrément naa génn ci sëy bi comme loolu lañ koy wax naan ko maa koy yàqal naa génn ci sëy bi ba mu ne sama jëkkër est-ce que man may baat ma dem mun na ma déedéet parce que daf ma bëgg moo tax bëggul bëggu ma may sama baat man tamit bëggu ma génn ci say bi parce que dama ko bëgg sama jëkkër dama ko bëgg mu bëgg ma instant may wax ak yow ni liggéeyul des fois sëriñ yi dañ koy wax wax yow xam ne du am xaalis pour def ko parce que day metti dañ des fois sëriñ yi dañ lay laaj laaj yoo xam ne ni yow mi liggéeyul mu nga am problème nan ngay mënee fa nan ngay mënee def loolu dafa metti